salaamaaleykum mbokk internet yi suivre Buzz SN ñoo ngi leen di nuyu te am mbégte contentement ñu fas yéene dikk ak yéen ci écho du jour danu koy doori ci mbiru ki nga xamante ni moo di amadu Ba moom mi nga xamante ne mi ngi dagaan baatu réew mi moom mii di Amadou Ba nag amut mbégte benn yoon ci li nga xamante ne moo di campagne am ndaxte ndaw yi sonk yi daat nañu koy sonal fu mu geesoo rek gis leen ñu koy sonkorisé Sonko Sonko judul jeex waaye nag la ma jaaxal ci boobule campagne euh, doy waar lool ci ki nga xamante ne moo nekk ci ginnaawam di Farba bopp ndaxte olof def naan ku ñu jiiñ dëmm ngay soccoo yeelu liir loolu nag xaw a jaaxal ñu baree bari ndaxte kii di Amadou Ba ñu ngi koy jiiñ Euh, ak jëlal jëlam gu doy waat ci nguurug Sénégal gi le waaye nag bu ñu geesoo ki nga xamante ne moo di Farba Ngom ji nga xamante ne moom mi di Farba Ngom yor na ko jaaxal réewu Sénégal gi le moo tax nag bu ñu jiiñee loolu Amadou Ba jiiñ ko Farba Ngom ñu geesu ci ay campagne euh, gis leen nag ñu daal di àndaat xel daal di euh, teey lool kii di président Ousmane Sonko la nga xamante ne yëkkati na ko ci ay kàddu di ko xamal Sénégalais yi ci ab campagne mi nga xamal ne nag sénégal yi moom mi di Ousmane Sonko dóorul jàmbaarloo wut ak kenn waaye nag képp koo xamante ne euh, nga ngir rek daal di dal ci kawam dina défendre boppam moom mi di président Ousmane Sonko moom mi di président Ousmane Sonko it ma ngay xam leen it yorut ay milliards yoo xamante ne dina ci recruter ñi nga xamante ne ñoo di ay nervi moom mi di président Ousmane Sonko li mu xam le ci ay kàddoom rek lépp loo xamante ne soxal na Sénégal moom mi ji président Ousmane Sonko dina ci bay waaram bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaye nag ci biir euh, campagne boobu le gis nañu ndaw ñi yuuxoo ñi nga xamante ne ñoo di force de l'ordre yi nga xamante ne ñoo teewoon ci boobule campagne ngir rek di sécuriser li nga xamante ne ñoo di euh, population ba fa teewoon biñ leen commencé yuuxu nag kii di président Ousmane Sonko di euh, dalal ndaw ñi ngir ñi dal ngir ne ñoom ñooñu di euh, force de l'ordre yi la leen fi indi rek mooy taxawu askan bi nga xamante ne ñoo teew ci yooyu la campagne moom mi di président Diomaye nag yëkkati na ay kaddu jëmee ko ci ñi nga xamante ne ñoo di baykat yi moom mi di président Diomaye nag nee na taxawaay ñoom dafa des lool waaye nag taxawaay bi nga xamante ne moom mii di président Diomaye bis bu jëlee réew mi rek dina ci ah, amal ak coppite bu baax a baax a a baax ci ñi nga xamante ne ñoo di ah, baykat yi ndaxte ñoom ñoo yor li gën a lu gën a mën a ah, développer am réew moom mii di président Diomaye daal dina yëkkati loxoom ne loxo bu set la yor waaye nag fii ak fan wala fii ak semaine dina indi ay leeral kane li waral kane mu yëkkati loxoom ne loxo bu set la yor moom mii di président Diomaye di ko xamle ci ab campagne am jërë ngeen jëf mbokk internet yi doon suivre Buzz SN